jaa ngeen jëf yéen euh, téléspectateurs yi jaa ngeen jëf suñu mbokk internautes yi heure bu baax bi gannaaw journal bi di jaajëfal Cheikh Diop ànd ceek euh, rédaction bu télévision Futur Media ñoom ñu leen doon dégtal xibaaru digg bëccëg bi bu jeexee tey la leen di man rek a fi ne man maa baaxoo di leen gunge yéen internet yi euh, wax naa ko mairie bi damay bàyyiwaat ba suba muy waxaat ko ko day trahir leen bi quoi mag la du mën a du yomb muy muy jóg ci altine bi nii fajar géeg ak week-end yu neex yi moom day am long week-end donc lundi ci lundi ci après midi bi ngeen koy retrouver ci seetu bi man nag tey euh, saa su ne lënd bu ne man maay ñëw accompagner leen ci li xew ci biir internet bi diggante jeudi vendredi samedi dimanche information yi day bari ba yu bari da leen rëcc ñun nag dañuy ñëw di leen gën a yaatal yi leen rëcci mais surtout jàngal leen wala expliquer leen yi nga xamante ni ay information yu fës la baaxul maanaam fake news yi mais surtout li nga xamante ni aussi da leen soxal mais tamit dina ànd ak ay kaf comme ni mu demee ci statut whatsapp yi facebook twitter wala instagram surtout weekend bi nga xam ne weekendu Saint-Valentin la Apulaay di la jaajëfal euh, jaajëfal internet yi réalisateur bi nag na ñëwaat ci Saint-Valentin ndaxte weekend bi moom xam naa ni démb la woon ci dimanche bi waaw mais euh, internautes yi tooñ nañ ci génnee ci ay affaires yoo xamante ni daal dangay ngay da ngay da ngay tas mais toujours c'est ça euh, noonu la pexe amul fi mu ne nii ak situation Covid beeg yooyu gars yi di toog seen kër yeeg yooyu mbiri internet daf ci ànd mais surtout mu nekk ci dans la euh, bonne humeur fun xam nga partager yenn wax yi tooñante ci la moog internet ñoo ànd ah ndaxte parfois affaire yi day sérieux ba information yi bari ñëpp di actualité bu lii jàllee leneen jàll buñ ci jógee rek fois il faut yu am yoo xamante ne day digérer un peu di reetaanloo nit ñi dafa ànd ak internet mais balaa boobu dañuy njëkkee ak question yi nga xamante ni posé woon nañ ko fi depuis jeudi mooy image bi dafa bokk ci émission bi image yi nga xam dañ koy posé internet yi ñoom tamit ñu am temps wu di eh, réagir seen ay réaction dañ koy jël daal di koy tataat actuellement bari na ay internet yu ñuy suivre ñëpp a ngi dugg ci euh, page Facebook bu télévision Futur Média min nañ ko boo demee Facebook def TFM di nga gis logo bu euh, rouge blanc bi daal di koy liker page bi daal di mën suivre émission yi yëpp yi jàll ci euh, TFM mën ngeen koy suivre rawatina li xew ci biir internet bi nga xamante ni aussi c'est interactif parce que seen ay réaction dañ koy jël daal di partager en temps réel te loolu dafa baax te léegi min ngeen ko hashtag bi bu fekkee Twitter la wala euh, wala Instagram wala Facebook hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram YouTube bi YouTube live Instagram live YouTube boo demee YouTube dangay def slash def TFM Euh, di ngeen ñu mën a am en temps réel aussi ñu partagé li jàll ci biir émission bi te loolu ci la bokk ak li xew ci biir internet bi Abdoulaye wan ñu image bi ma bàyyi internet yi réagir continuer jox joxe seen ay réponse fii ak demee mairie di ñëw moo ko fi bàyyi woon bu ñëwee ñu gën ko yaatal wan leen image bi ñu xool ba xam nax gars yi ba tey ñi ngeeg seen jeunes yi wala 1 pour cent personnes nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy laajte ne ñoo war a mën a trouver image bii nga xamante ni euh, depuis jeudi lañ ko fi bàyyi woon ba euh, internet yëpp euh, di ko partagé mu nekk loo xamante ni lu am solo la te ci jamono jii fi ñu toll nii gis naa ni suñu hashtag dafa gën a yéeg quoi voilà image baa ngi nii am ngeen possibilité réagir en temps réel muy Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi suñu net la euh, ñu ne 1 pour cent des gens peuvent euh, repérer l'animal sur la photo yombul nag ndax gis naa ni yombul gis naa ñu bari di euh, commenter ku nekk di euh, proposer wax ni gis nañ image bi joxe seen ay réponses mais yaakaar naa réponse bi du réponse bu baax bi de peut-être mën ci choisir kenn suba yóbbu ko ci jili CSB nekk rond point cité kër góor gi moom mi sponsorisé rubrique ki kan la wala lii lan la wala parfois yii question yi nga xamante ne dañuy tàmm di ko fi poser internautes yi aussi di ci euh, réagir en temps réel ñu tamit dañu jël dal di koy partager ci émission bi la bokk wala voilà am ngeen possibilité toujours di réagir xaaral ma xool quelques réactions internautes yi ba xam euh, actuellement en live sur Facebook ñi ngi joxe seen ay réponses am nañ possibilité def ko réponse yaa ngi nii ñu ngi commenté voilà kii <laughs> ñu ngi joxe ku ci nekk ngi wax ne kii nee na chien la gis bon waruma kii nee na ku jëfaal nee na chien la gis moom tamit bari na gis chien dafa mel ni dafa mel ni réponse bi chien la de wala ba suba ñu joxe réponse bi mais en tout cas continuez leen réagir hashtag bi sunu net la actuellement en live sur Facebook euh, sur les réseaux sociaux bref muy Facebook live Euh, Instagram live YouTube live boo demee Twitter da nga ciy boole hashtag bii di sunu nett leneen li dañuy ñëw ci réseaux sociaux yi ci weekend bi nekk na lu xumb te dagan ci dañuy njëkkee ak jàkkaarloo ni mu nekkee woon émission euh, bi gën a fës ci weekend bi ci vendredi bi ndaxte gis nañ ni sénégalais yu bari ñu ko doon suivre hashtag jàkkaarloo aussi di leen jaajëfal ñoom équipe bi yëpp d'ailleurs mais hashtag bi nekkoon na hashtag bi ñu gën a utiliser ci ajjuma ji jàpp samedi ndaxte. sujet bee wa bee ko waraloon peut-être mais en tout cas euh, internautes yi réagir nañ ci joxe ci seen xalaat hashtag bu ñu gën a suivre sur Twitter surtout ku nekk doon ci joxe sa xalaat mu nekk émission boo xam ni gars yëpp mën nañ jàpp ni Sénégal gi yëpp suivroon nañ ko ak hashtag bii di jàkkaarloo di leen jaajëfal ñoom équipe bu jàkkaarloo bu ñëwee ci loolu app ñu dem ci Saint-Valentin bi wane leen image yi nga xam ne internautes yi ñoom seen bopp ñooñu ko euh, ñooñu ci tagee ak hashtag bii di sunu net muy Twitter Facebook wala Instagram gis ngeen commentaire yi comme ni ngeen koy gisee nii ci euh, écran bi mu nekk commentaire yoo xamante ni internautes yi ku ci nekk envoyé na sa commentaire am na ku ci ne ne sauf yeeg euh, statut WhatsApp yi ñi ngi koy partagé ku nekk doon nëbb sa Valentin ñenn ñi ndaxte ñenn ñi nee nañu sax boo partagé sa Valentin parfois nga nduróowaale keneen ak Valentin mu nekk muy góor di jigéen ah mu nekk ci côté góor ñi wala ci côté jigéen ñi en tout cas ay commentaire la yoo xam ne gis nga bi Drissi moo ko wax mu ne bébé en train de bloquer bébé pour poster bébé restons concentrés effectivement <laughs> ay ay message la yoo xam ni muy Facebook statut WhatsApp Instagram ñëpp ko doon partagé ci internet bi mu ne posté boobee dina am ñu niroo ñu niroo la de effectivement loolu tamit dafa ànd nag ci démb ci Saint-Valentin bi en tout cas nekk na journée boo xam ne sénégalais yëpp ko doon partage partout dans le monde d'ailleurs ñenn ñi doon nañ siisu ne voilà fête commerciale la mais en tout cas gars ku ci nekk ci sa manière surtout ci réseaux sociaux yi ku nekk na ni nga doon fêté ci lii di Saint-Valentin bi leneen li mooy d'ailleurs am na benn vidéo bu ñu sélectionné am benn internaute voilà lii tamit dafa ànd ak hashtag bi nga xamante ni utiliser nañ ko diggante démb ak tey Saint-Valentin ñëpp boole ñu ci taggee mooy hashtag sunu net gis nañ ni vidéo Youssou Ndour bi pour pourtant dem ci guddi la génn mais boo demee ci page yu euh, YouTube bu Youssou Ndour gis naa commentaire yi dafa bari plus de Euh, même pas une heure de temps yeggoon na plus de quatre mille quatre cent et quelques commentaires yoo xam ni ñëpp kii ciy joxe di wane ni affaire bi ba tey touché na leen je pense Abdoulaye mën na ci déglu benn extrait doog a ñëw ci beneen vidéo bi nga xam ne internet yi ñu ci tagué ñu war ko partagé. Chéri bëgguma jaajëf vidéo baa ngi noonu mi ngi ci euh, chaine YouTube bu Youssou Ndour gis naa commentaire yu bari gars yi bi mu génnee ci guddi gi ak euh, même pas une heure de temps ñëpp di ko partagé mu nekk loo xamante ni Youssou Ndour voilà on comme ni ko sénégalais wala àddina wërngal këpp di bëggee moo tax internet yi bu dugalee dara da leen ni intéressé da leen ni saf loolu am na solo euh, leneen li ñu wane vidéo bi du ma ci commentaire dama leen wan vidéo bi nga xamante ni internet yu bari ñoo ñu ci taggee ak hashtag bii di sunu net ci mbirum Saint-Valentin la mais bii moom c'est Tac, tac. monsieur. Bonjour. Euh, désolé d'entrer dans votre euh, chambre ici. Je sais pas si vous avez constaté qu'il y véhicule garé devant votre maison. Oui, j'ai aussi vu ça. Et je que les voisins pirates qui gardent Non, non, c'est en l'honneur de la Saint-Valentin et c'est votre petite amie qui l'a fait livrer chez vous. Ma petite amie m'a offert la voiture pour le cadeau de la Saint-Valentin. Oui, oui. Yeah C'est vrai. C'est... Oh pardon, je, je Non, non, non, mais il y a une condition. Euh, elle demande que vous donnez son nom pour que je puisse vous remettre euh, la clé. Elle, c'est aussi elle qui vous a de filmer. En fait, c'est immortaliser la chose, quoi. Elle demande son nom. Ça peut même être qui Essayez rate son nom, vous ne pas la voiture. Bon, en fait, si vous me donnez pas son nom, ça veut dire que c'est pas votre copine, donc je vais juste retourner avec le. non, non, c'est ma copine, comment Elle a dit qu'il m'appelle comment Elle a bien donné le prénom, le nom de Tayou Voilà, c'est moi. Yeah, yeah, yeah, être qui Ça peut être qui Ça peut être qui qui m'offre la voiture, qui peut avoir les moyens pour m'offrir Non, non, non, non, c'est pas du tout Sandra. Je savais, Sandra est d'abord trop chiche. Sandra est trop chiche. Ah, c'est Vanessa. Non, pas du tout, c'est pas Vanessa. C'est qui C'est Mélène, Mélène qui banque les arachides et va prendre l'argent la voiture. Bon, en vous avez déjà épuisé vos trois opportunités de me donner. tout ça, ce n'est pas ça. Non, non, ah c'est juste une ah! seule chance, monsieur. Une seule chance, une seule chance. Il reste à coca, ce petit ami. Je sais que c'est qui. Et la voiture passée, oh, <laughs> maman. Une voiture d'allumette passée, voilà, samedi. Samedi, Carola. Monsieur... Et Muriel Non, non, c'est pas yeah Désolé, monsieur, on doit raté la voiture, raté. Au revoir, mooy résumé Saint-Valentin yow sa genre gi Apulaay yow mi réalisé émission bi nii la moo tax da nga war a jub ba dootoo xàmmee tur yi ñi nga jëpp dafa bari célibataire baaxul <laughs> jaajëfal internet yi ñoom ñi ñu posté ci vidéo bi ñu tamit ñu gis nii dina soxal eh, eh, téléspectateurs yi internet yi jaajëfal leen ci euh, gis nañ euh, solo bi ngeen jox émission bi mais surtout euh, lépp loo gis loo xamante ne lu fën la lu reetaan la mais surtout luy alerter aussi da ngeen ci boole émission bi hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram loolu nag moo doon tëj vidéo mbirum Saint-Valentin ak ni mu demee ci réseaux sociaux yi ba ku nekk di créer muy TikTok Facebook Twitter wala Instagram ñëpp doon partagé démb mu nekk loo xamante ne lu fën la gars yi fàtte tuuti actualité yi doon jàll xam nga wax naa ko information yi day jàll ci internet bi ba day bari ba bu ngay mujjee am lii di infobésité chaque jour ma wax ko maanaam trop d' information waaw information yi day bari bari ba doo mën a décortiquer ban nga ci war a mën a jàpp mais aussi am na yu am solo yoo xamante ay internet ñoo ñu ciy posté hashtag bi sunu net la comme vidéo bii ngeen gis vidéo alerte la wala euh, vidéo boo xamante kii dafay dénoncer euh, li mu gis ci tali bi loo xamante euh, gis na ni war nañ ko mën a partager autorités yi gis ko mais ku ci nekk ñun sénégalais yi ku ci nekk di jël ses responsabilités nañ leen ko dégtal ngeen xool ko bu baax lii baaxul ñëpp xam nañ ko mais toujours du ñu jóg ci di gën a ñaax nit ñi ñuy xam ni yenn yi risques yi baaxul di jël. non lii bu ma ko nettali woon da ngeen di naan damay fen ko mais xool leen camion bi lii ruu la ok waaye lii ruu la lii nice mais xool leen lii ko xool leen lii ko non bàyyi Afrique te encore. est-ce que j'avais pas vu c'est que fii nii gis ngeen fii affaire yi ko takk quoi. dañu takk kii bi xam nu ñuy woowee la barre la la barre kii kii relie les deux roues dañ ko takk quoi oh voilà ay vidéo euh, de sensibilisation wala alerte wala euh, gën a ñaax nit ñi wala su yenn situation yi nga xam ne dañ koy dund wax naa ko léegi tout le monde est journaliste léegi moom ñëpp ay télévision yu ci poche la ñu am ndax suñu téléphone portable yi bu ñu gisee lu jaarewul yoon gannaaw bu ko vérifié ba mu leer dañ koy partagé mun ñëpp mën ci jariñu lu am solo la fi jamono toll moo ko waral ndaxte internet tamit dafa bokk ak àddina d'ailleurs ci internet boobu la ñuy des ndaxte àddina yëngu na ci week-end bi ndaxte plus de 3 milliards de mail yu ñu piraté loolu lu yéeme la di wax ne euh, bu jafe-jafe amee ci mail yeeg yooyu day mel ni troisième guerre mondiale lii nag yëngal na àddina donte ñenn ñi gis nañ ni voilà ça fait rien du dara mais dara la euh, ndaxte mail yu ñu piraté actuellement mail dafa nekk loo xamante ni euh, comme bu njëkk ba suñu coffre coffre fort fi ñu doon denc xaalis yu bëree bëri yeeg yooyu léegi suñu loolu la ndaxte ku nekk sa lépp li nga xamante ni sa jumtukaay liggéey li ngay liggéeyee sa yeneen ak yeneen information yi nga xamante ni yu lay jëmale kanam fi àddina toll sa mail nga koy def yi ngay partagé ak lu ne duñu la expliqué mail xam ngeen ko bu baax ak njëriñ yi surtout ñi koy utiliser ñi nag ñu mbirum piratage bi duñu jóg ci di ko wax internet fi jamono toll munoo am sécurité à 100 pour cent moo tax conseil yi leen di jox mooy toujours parfois di di changer seen ay mail mënoon toggee 6 mois wala 3 mois yoo xamante ni ngeen changer mail yi te pourtant mail yooyu sax d'ailleurs seq nañ ci waxtaan ak Mountaga Cissé moom formateur la mais surtout xam-xamam màcc ci mbirum euh, digital yeeg fi jamono toll mooy euh, moom Mountaga Cissé baax nañu di ko gis min nañu kanamam ci émission bi mais surtout ci mbirum euh, TIC yi moom Mountaga Cissé mu ñëw ci conseil internautes yeeg téléspectateurs yi euh, bu situation yu ni mel amee yan conseil la ñu war a mën a jox ñi nga xamante ñooy utilisateurs yi ci mbirum utilisation mail yeeg euh, li nga xamante ne fii jamono toll la. waa xam nga mot de passe mooy mën naa wax mooy caabi bi tax nga dugg ci ci ci sa ay compte yu bare surtout compte de messagerie yi donc dafay baax. Euh, soo koy choisir wala soo koy jëfandikoo nga xam noo koy jëfandikoo ndax euh, suñu compte de messagerie yi wala compte si réseaux sociaux yi benn bu si nekk dafa am mot de passe bu ñuy jëfandikoo pour connecté wu ci. léegi nag euh, su ma leen doon jox ay conseil pour sécuriser compte bi ci njëkk mooy choix mot de passe yi ci boppam mot de passe bi caabi bi ci boppam nan nga koy choisir. Euh, ndax warul nekk loo xam ne dafay facile pour ñu deviner que maanaam dafay yomb trop pour ñu jàpp ko lu demee nekk sa tur wala sa tur mbokk ku la jege wala tur dëkk boo juddoo et cetera euh, xam nga loolu pour deviner que mën na yomb trop acteurs yi pirates yi mën nañu facilement euh, xalaat ne loolu la war a nekk beneen bi mooy soo ko soo ko tànnee ba pare warul nekk bind bi warul nekk bindin bu yomb tey fi tey bu fekkoon da nga jël par exemple Euh, ne Ibrahima Dakar mooy sama mot de passe euh, su boobaa euh, soo koy bind doo ko bindee comme ni ñuy bindee ci français Ibrahima wala Dakar dafay baax soo koy bind nga bind i majuscule wala nga def Dakar bi ka bi majuscule et cetera waaye waroo yam foofu itam da ngay par exemple su fekkente ne que bind nga mot de passe da nga yokk ay chiffres. maanaam tey bu fekkonte ne da nga jël Dakar da ngay def dakaar quatre vingt onze wala dakaar quatre vingt dix sept wala quinze dakaar maanaam mot de passe day nekk benn mot euh, benn bind plus ay ay plus ay chiffres nga xamante ne loolu dina ko gën a jafeel def ci ay majuscule def ci ay minuscule mu nekk itam loo xamante ne comme ni ma ko waxee du yomb xalaat waaye waruloo yam foofu rek ci sa mot de passe da ngay fexe tamit mu doon mot de bu xaw a gudd maanaam waru nekk ay ay ay cinq six lettres six caractères seulement ndax sax d'ailleurs am na application yoo xam ne tey soo fay dugal mot de su gàttee danaan la du jàll waaye beneen bi ci topp ci ay conseil mooy mot de passe bi waruloo jël sa benn mot de passe bu nekk sa mot de passe su plateforme yëpp tey fi tey bu fekkonte ne que dama jël mot de passe Ibrahima euh, mu nekk mot de passe boo xamante ne que Facebook Twitter Snapchat Instagram euh, compte yi ma am yëpp Gmail yow compte bu mu mënti am moom laay def tubaab sax ñu naan waruñu jël euh, maanaam nen yëpp def ko si benn pañe ndax bu pañe bi daanoo xam naa. da ngay ñàkk sa nen yëpp mo moom foofu nag la ñuy wax ne le même mot de passe boo ko xasee ba def euh, fenn pirate bu demee ba xam ko rek dafay mën a connecté wu ci sa compte yëpp il est recommandé tey mooy nga fexe ba sa mot de passe mu bañ a nekk même mot de passe partout ci même plateforme yëpp mën na am peut-être nga jël benn mot de passe utiliser ko si ñaar ba ñett yeneen yi nga defee ko noonu euh, dernier conseil bi nag mooy euh, sa mot de passe da ngay fexe ba Euh, di ko mettre à jour régulièrement maanaam tey euh, nga ne sama mot de passe chaque six mois dama koy changer wala chaque trois mois dama koy changer am na sax bu fekkee ci bërëbu liggéeyukaay la entreprise yi ñoom dañuy am système boo xamante ne obligatoirement da nga war a changer mot de passe soo ko changer wul dootoo connecté wu ou bien bu xew-xew amee benn voilà di jaajëfal euh, Mountaga Cissé moom mi nga xamante ni moo ñu doon leeral ci mbirum mot de yi yi prétexte bi wax naa ko sànq mooy 3 euh, milliards d' yi nga xamante ni dañoo piraté seen ay mot de passe ci par Gmail ci week-end bi diggante jeexitalu semaine bi loolu laa ko mën a ju euh, waxe maanaam explication yi mu ci wax am na solo mais surtout conseil yi mu jox internautes yeeg yi ñu en tout cas ñu jàngaat mbirum internet fi jamono toll moom chaque jour da ngay jàng ndax yëf yi ni muy évoluer dafa gaaw moo tax li mu wax dafa am solo ñuy changer mot de yi pass yi tamit ñu koy xaw a compliquer tuuti te jàpp ko ndaxte euh, bu yombee trop trop kuy pirater dafay yomb ñëw dugg ci sa euh, li nga xamante ni sa ay plateformes yi ngay utiliser muy ay Facebook ak euh, yeneen ak yeneen ak yeneen yi ci topp yëpp te parfois suñu secret donte nag du ñu jóg ci di ko wax sécurité à pour cent mënul am ci internet dañuy njortu ne rek parfois bu compliqué tuuti pour ñu pirater ko dina xaw a jafe waaye duñu jóg ci di ko jaajëfal moom Mountaga Cissé xam-xamam màcc ci mbirum di nekk koo xamante ni digital manager la nekk formateur en TIC di ko jaajëfal ci explication yi mais surtout internautes yi bég nañu ndaxte ku nekk ngi commenté ci euh, wax bu simple bi mais surtout explication bu leer bi nga xam ne joxe na ko ci mbirum euh, suñu mot de passe yeeg jafe-jafe yi nga xam ne parfois dañ koy dund d'ailleurs ci la ñuy des mbirum internet duñ ci jóg ndaxte fake news yi tamit bari na fi jamono toll ak euh, mbirum euh, coronavirus nga xam ne chaque jour ku nekk spécialiste la ku nekk ay def live ku nekk ay joxe sa xalaat ci fi jamono toll euh, d'ailleurs Facebook décidé na jël benn décision boo xamante ne fas yéene cee ànd ak plateforme yi mu moom moom marque moom Facebook ak Instagram ngir fexe képp kuy wax ci mbirum vaccin yi mu nekk fake news daal di koy effacer bu nekk ay vidéo la ak yooyu loolu nag décision bu am solo ñëwoon nañ ci ci semaine bii ñu génn leneen li mooy ci explication bu simple bi mooy dañu waxoon ne benn vidéo euh, buy jàll ci whatsapp yi ñu ci bari jot ko ñu ne mbirum euh, dañu waxoon ne mbirum euh, lii di citron maanaam limon boo ko boolee ak bica bicarbonate day faj lii di Covid. te loolu amul amul benn scientifique bu ko fësal moo tax waa Africa Check di def ab message yoo xamante ni ñu ngi koy partagé di ko jàllale journalistes yi ngir ñu gën ko mën a partagé ñii di internet yi ndaxte ñu ci mel ni sama ñoom yaay lépp lu ñu jot ci whatsapp yi dañuy yaakaar ni dëgg la naan maa ko dégg léegi ci audio bi te pourtant audio yi ni tey toog fenn rek wax lu ko neex daal di partagé du scientifique xam-xamam màccul ci mbirum Covid bi xamul ñu koy doxalee ak fi situation bi toll donc loolu day gën a lor ay nit yi nga xamante ni ñu ngi ci situation yu ni mel mais surtout monde bi nga xamante ni actuellement ñu ngi ci mbirum recherche ay vaccin yi ak fi situation bi toll donc lépp lu ñuy wax ci mbirum Covid bi di ko jàllale ci internet bi nañ koy xam te ne nekk lu wóor wér dafa am solo ndaxte eh, wérgu yaram amul prix waaye tamit di déglu ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci muy médecin yeeg euh, ñoom ñi nga xamante ni aussi ñi fi situation bi ñoo ñu ciy gindi. di jaajafal di gën a fàttali aussi ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yeeg fii jamono toll ak Covid bi fi mu toll nii ñuy gën a respecter mesures barrières yi tey takk masques yi mag ñi. raxasu ba set te wàññi génn bi ndaxte yëf yaa ngi gën di yokk chaque jour euh, point du jour bi nga xamante waa ministère de la santé di ñu ko dégtal saa su ne ngeen gis ni yëf yaa ngi gën di yokk te pourtant bu ñu xeexandoo ensemble euh, daal di takk masque yi respecté li nga xamante ne ñoom waa ministère de la santé wax nañu ko euh, dinañ ci mën a génn te loolu am na solo waaye gën a wax tamit ci mbirum fake news yi am na solo ngir mag ñi ak ñi nga xamante ni maîtriser wuñu trop trop trop internet gën a xam ni lépp du lépp luy jàll ci whatsapp yeeg yooyu dëgg la Eh, nañuy déglu ñi nga xam seen xam-xam màcc na ci te am na solo ndaxte toll fi nga toll rek daal ne man la diw pourtant médecin laa fii ak fii ak fii amul dara lu koy prouver voilà limon ak bicarbonate boo ko boolee day fet Covid benn spécialiste waxu ko te pourtant audio yaa ngi circulé moo tax waa Africa Check ñoom di leen di leen jaajëfal mais surtout liggéey bu am solo bi nga xam ñu ngi koy def ci mbirum xeexub fake news yeeg euh, xibaar yu wérul yi nga xam ñu ngi koy jàllale ci réseaux sociaux yi leneen li d'ailleurs ci réseaux sociaux yi la ñuy des ndaxte keroog man ak mairie ñi ci doon waxtaan euh, possibilité yi nga xam ne ndaw yi am nañ ko ci mbirum euh, internet actuellement Facebook du photo posté photo rek am na ñu ciy jaay am na ñu ciy liggéey bu baax a baax gis naa ni ay sénégalais yu bari ngi ciy góorgóorlu moo tax vidéo bi benn internet moo ñu ci taggee ak hashtag bi di sunu net Qu'est-ce qu'un jeune peut faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux au lieu de perdre qu'il gagne Nous, nous avons été une génération sacrifiée. Aujourd'hui, les jeunes ont tout sur Internet. Ils ont les livres, ils ont des devoirs, ils ont tout pour être des scientifiques, ils ont tout pour être excellents. Le marketing, c'est-à-dire la science de vendre, ils ont tout. Ils peuvent apprendre pour qu'on vende notre qualité, qu'on vende le sitemou, qu'on vende, euh, Mais c'est ça, les Chinois ont fait. Des jeunes qui apprennent et qui montrent ce qu'ils ont appris. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller forcément dans une école pour aller apprendre du marketing. Si toi-même tu es décidé, tu peux apprendre. Hein? Mais aujourd'hui, ils laissent tout ça. Ils sont dans la chambre. Je vais vous dire quelque chose. L'Internet les rend tous impolis et mal élevés. Vous êtes dans votre voiture avec un, un, euh, votre enfant ou avec un jeune. Il, est devant, il, il a le téléphone comme ça. Le selfie. Selfie. C'est comme si vous, vous n'existez pas. Mmh. Aucun respect. Mmh. À table chez moi, je dis chez moi, on mange pas avec le téléphone sur ma table. Même si tu es mon invité. Vous êtes assis en compagnie de quelqu'un. Vous ne parlez pas à cette personne. Et vous préférez parler à quelqu'un qui a, je sais pas moi, à combien de kilomètres. C'est cette personne-là qui vous intéresse. Celle qui est là, là, vous ne lui parlez pas. Euh, dans les couples, c'est la même chose. Aujourd'hui, les couples divorcent à cause du, téléphone et à cause de gouverne. Hein? Le téléphone, la musique, les vidéos, c'est quand tu es seul. Donc ça te ça te ça t'occupe. Maintenant, il est en ta compagnie là et puis la casque. T'es obligé même de le taper là. pourtant li muy wax ak am solo li muy wax ak am solo moom euh, père de famille la mais li mu wax am na solo ci euh, wolof bu simple rek mooy utiliser réseaux sociaux yi fi ne dafa yëngal àddina ba fi ne ni kenn talul dara wax na ko nee na moom bu toogee këram sax di lekk fi ne ni amul même bu fekkee invité nga doo yor sa téléphone ndax tey mënoo nekk ak nit ñi nii di wax ak ki nekk ak à euh, quelques kilomètres wala ay centaines de kilomètres la loolu fi jamono toll nag léegi xam naa ne yombul léegi kilifa yi boo demee suñu papa wala suñu yaay yi ñu bari ñu ngi xeex loolu ci kër gi yombul ndaxte léegi kër gi doo xam ku nekk ak sa néeg ak sa téléphone portable heure lekk yi da ngay woote ba sonn ñëpp a ngi scotché fi jamono toll la waaye tamit di leen gën di ñaax naka la ñuy utiliser réseaux sociaux yi am na solo tamit ndaxte ñi ñaa ngi ciy gagné eh, di ci liggéey loolu dafa baax ñu koy fésal tamit ndax du rek lu bon wala live yi nga xam ne ñuy def saaga diw wala dara àndul ak sax eh, suñu culture rek suñuy tradition chaque jour ñu ñëw ci di ci gën a fésal mais naka ngeen di def ba utiliser eh, les nouveaux médias maanaam xarala yu bees yi wala munu mën sax d' accord ma ñoo xam lu bees la ndaxte léegi moom mi ngi bëgg a yàgg ndax plus de 10 ans léegi maintenant mi ngi bëgg a yàgg nekkatul euh, xarala yu yees yi sax la ñuy wax rek pour euh, mag ñi comprendre mais xale yi gën ko comprendre aussi ni ñuy def ba gagné ci xaalis ba liggéey ci léegi nit ñaa ngi xale yaa ngi toog seen biir kër di liggéey xaalis bu weex tàll ci seen euh, grâce aux réseaux sociaux mu nekk ay influenceurs community manager yeneen ak yeneen métiers yooyu yëpp ñëwoon nañ ci expliquer leen naka ngeen di def ba nekk ci euh, ba mën ci di liggéey honnêtement di gagner honnêtement sa xaalis te loolu am na solo moo tax euh, cri de cœur boobu benn internet daal ñu ci posté tagge ci ñu partagé li mu doon wax nag am na solo moom borom xam-xam boobu leneen li mooy gis naa ni ba tey photo bi nit ñaa ngi ciy commenté hashtag bi sunu net la internet yaa ngi nii su sunu page Facebook bi ku nekk di joxe commentaire am ci euh, image bi nga xamante ni moom lañ proposé suba nag la ñuy joxe tontu bi ci kanamu yi mais surtout euh, ku nekk naan ñii boo ko dëppee boo ko tourné kii gis naan lii am na sax ku ne l'homme ci boppam et l'animal waaw mën na ne <laughs> loolu baax na philosophie doon nañ ko wax mais euh, continuer leen réagir hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram mu nekk loo xam ni miin ngeen ko ci li xew ci biir internet bi internet nag géej la dafa yaatu. li ciy jot a xew yëpp dafa bari mais Abdoulaye di la jaajëfal mais surtout ñu ñëw ci le meilleur pour la fin léegi ñu jeexal 14h daal di bàyyi ak beneen heure bu baax bi waaw ref ñu ngi ci ginnaaw di waajal di jaajëfal bu baax moom tata Eva le meilleur pour la fin euh, mooy euh, kii kan la wala lii la kii kan la bi nag euh, am na ku fi bàyyoon depuis jeudi waaw ñëpp mi gis naa ni internet yi bari ñenn ñi nag am na ñu bari dañu faussé. image bi daf leen xaw a réer quoi effectivement Cheikh sekk la ñëpp xam nañ ko muy président jaraaf nekk koo xamante ni jaar ci équipe nationale bu Sénégal ci année 80 ba année 90 yi euh, Cheikh Cheikh Seck kenn du ko présenté fii ci Sénégal nekk na ci gardien de but yi ñu gën a ràññee ci Sénégal bu ñuy wax Sénégal boo demee tukki ci dëkk naar yi ba tey dañ la koy laaj Tunisie bi mu dem ak bërki démb wala démb ak jaraaf gañe fa d'ailleurs ci euh, coupe CAF bi ak euh, ci fi mu demoon fële ci pas Tunisie dama bëgg a wax Zimbabwe bi mu dem ak jaraaf ñoom waa jaraaf di leen jaajëfal di leen félicité aussi ci seen ndam lu am solo bi ñu am fële ca Zimbabwe ñoom ak waa Platinum euh, benn bal ci dara di leen xaar ci match retour bi mais surtout bëgg ñu qualifier ci euh, coupe CAF bi euh, phase de groupe bi mu nekk lu am solo moom Cheikh Seck euh, juddu ci 8 janvier 1958 nekk ku ñu dul présenté ci histoire u footballu Sénégal bokk ci fédération sénégalaise bu football mais bokk aussi jiite jaraaf bi nga xamante ne actuellement mi ngi wane jéego yu am solo ak fële ca comme coupe CAF ak équipe bii di jaraaf leneen li moom Cheikh Seck nga xamante ni gis naa ni internet ku ci nekk présenté na ko joxe xalaatam ak ki nga xamante ni aussi mooy parcours nekk moom euh, internet léegi mën nañ ak li euh, li nga xamante ni mooy rubrique bi kii kan la wala lii lan la bi nga xamante ni euh, saa su ne. Eh, dañ ci ànd ak jiili CSB nekk rond point cité kër góor gi moom mi sponsorisé rubrique bi d'ailleurs am na ki ñu doon wax bi passé trouvé na te ñu demoon euh, waxoon ko mu dem ci jili dem na ba ba ci CSB nekk rond point cité kër góor gi jili eh, ca showroom bu mag ba daal di jël lii di ay lowam mi ngi noonu day photo wu ñun tamit ñu partagé photo bi nii lañ ko baaxoo di defee saa di jaajëfal bu baax jili CSB nekk rond point cité kër góor gi am na Samsung yu bees yi waaw fold bi ma nga fa s baa nga fa jili nekk rond point cité kër góor gi di ko jaajëfal moom moom eh, di jaajëfal aussi ki nga xamante ni moom lañu tànn ci internet boobu mu dem ci jiili jëli loowam kii kan la bu bees bi voilà wax leen ñu kii kan la hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram wax naa ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xamante ni avant la pendant ak après lii day continuer commentaire day continuer ci réseaux sociaux yi hashtag bi di sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram wax leen ñu kii kan la kan moo nekk ci photo bi ngeen commenter wax ñu un jaar-jaaram. ah duma ci ñëw du ma détaillé du ma wax dara du ma leen jox benn indice may xool ba xam ndax internet yi ñu ngi commencé trouver ndax d'habitude boo wanee photo bi rek ñu ne la kii kii la waaw di jaajëfal suñu maire yi suñu paa yi nga xam ni ñuy suivre ay euh, fidèles téléspectateurs lañu ñoom euh, mag ñi parfois dama yaakaar ne internet rek ci ne nekk ci internet bi di commenter pourtant mag ñi dañuy bàyyi xel bu baax émission bi mais surtout conseils leen di jox ci fi jamono toll ak téléphone portable yeeg euh, réseaux sociaux yi kii kàlla bi c'est bon wan leen lii làll bi. Abdoulaye lii lan la moo xam nga ko wala li mag ñi ñoo koy xam yéen seen génération xamu leen lii <laughs> beneen bi ngeen xam. wax leen ñu lii lan la hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram euh, émission bi day continuer juste après même bu ñu jeexalee fii ba suba dañuy continuer ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la muy euh, ci plateforme yëpp ah actuellement en live sur Facebook mën ngeen dem Twitter mën ngeen dem Instagram wax naa ko jox leen dig dajee jaajëfal téléspectateurs yi internautes yi émission bi day continuer ci réseaux sociaux yi bàyyi leen ak beneen heure bu baax bi ak waa maanaam Tata Eva ak euh, son équipe ñoom doy baa nag Marie Mami Wareef mi nga xamante ni daf avancé jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi